assalamu alaikum ni seetaan Luga TV à travers toute la commune de Luga dans la région et même au niveau de la diaspora man Abdoul Wahab porte-parole du mouvement d'Oli Macky Malin du nuit tu nuyu président Mamadou Mamour Diallo di d'abord di leen ci corps gi ñu nek di subhaanahu wa ginnaaw ban ko sante moom mi nu defal ñu fekkewaat weeru kooru ren bi di ko ñaan mu dolli nu kàttan ak wér gun àggalee koor gi e, te di ko ñaan sunu boroom lépp luy xewal ak yiw ci weeru koor wi mu defal na ko ñun ñëpp ginnaaw loolu tamit e, maa ngi masawu mbokk àdduna bépp ci mbas mi lëmbe àdduna bi muy Covid 19 nga xam ne tey jii vraiment ñëpp ci jaaxle la nekk ñu ngi ci massawu ñëpp tey ñaan yàlla tamit yàlla mi ko indi woon teggil nu ko ci jàmm ak salaam ba àdduna bi dellu fam nekkoon ku ne mën a dellu sa liggéey bu loolu weesoo nag tey jii maa ngi ci. Luga TV en tant que porte-parole du mouvement Doli qui est le président de Mamour Diallo ma suis fasciné waxtaan ak àdduna la diaspora bi particulièrement à Louga euh, à l'intention de la diaspora ou à l'intention de tout le monde de c'est nécessaire ma def historique du mouvement Dolly pour ñu ko xamul woon xam mouvement dolli fan la jóge ñi ko xamoon ba pare tamit baax na ñu leen di fàttali fan la mouvement Dolly jóge ak lan mooy taxawaayam tey ci Louga ak ci Sénégal mouvement Dolly Macky Sall nga xam ni président Mamour moo ko dirigé ñu ngi ko samp en 2016 li ko waroon nag li taxoon ñu def mouvement Dolli li sababoon nekkam ko dafa nekkoon ci benn contexte particulier ñëpp xam nañ ni entre 2012 ba deux ba ba ñuy def référendum Louga daanaka dafa basculer woon dans l'opposition li koy firndeel mooy référendum bi le référendum bi jàllee danaka, Louga opposition bi amone na ci je suis très bien placé pour le dire parce que moi, waxtu woowu man mi di wax ak c'était une identité remarquable dans cette opposition là ci le président Macky Sall bim mu lolu xamni Louga ngi bëgg basculer dans l'opposition ci la yabal Mamadou Mamour Diallo pour mu ñew jàppale ko fi ci Louga ci politique bi donc ci contexte bobu lan defe mouvement Dolli Macky Sall président Mamour Diallo dirigé ko entre politique bi mu fi defoon fi de mémoire de sénégalais musu fé am ñepp ngoy rappelé wu toute la république était là présente Alaaji Mansour mbay ci bopam moko waxal bopam archive yaa ngi fi ko xam donc ci contexte c'est ci mouvement de ñëwé lan mo doon taxaway bu bi ñaari objectif la un objectif yi c'est que bi mo d'abord parce que nous xam na le bi mouvement en 2016 on préparé les élections législatives de 2017 si ni ma ko basculer dans l'opposition alors premier objectif Est de faire président Macky une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale effectivement mouvement Dolly Macky Sall et son président Mamadou Mamour Diallo bay Waram, gagné largement les élections deuxième objectif c'était plus déterminant moy fexé ba président Macky Sall mu am deuxième mandat ci élection 2019 présidentielle élection présidentielle ñun d'ailleurs ku melni man mi di wax ak yeen tey jii ak yeneen identité remarquable yo xamni ñi ngi won tay ci opposition bi ñun ñëpp Mamadou Mamour Diallo convaincre nan ban ñëw and ak mom ci mouvement bobu di liggéey motax tay danaka Louga opposition mom demeetul nim fi démé won kooku mom ku nek man nako koo ndax dama ne la duma lim waye ku ne xam na ni identité remarquable yi nekkoon fii ci opposition en tout cas ñi ci gënoon a la ci ëpp tay di rejoindre nan le président Mamour Diallo dans le mouvement Dolli donc deuxième objectif pour tamit tay di atteindre nako parce que avec plus de 60 ici au niveau de Louga le président Macky Sall gagné l'élection présidentielle notre objectif yooyu le mouvement dolli du continuer chemin te tey li ko a ñor c'est ku accompagner le président Macky Sall dans toutes ses actions de politique publique Il ma dit, lim ñaar la yoo xam ne suis ci gën a président Macky Sall décidé de programme programme de deuxième mandat gis Sénégal salte bi dafa torop de développement environnement opération cleaning day nga xamni ni ku ne fàttaliku na xëy na mi activité bobu chaque samedi chaque mois premier samedi ba le président Macky Sall ak autorité politique yëpp dañuy wacc ci gox yi def li ni wax opération cleaning day comme ni ma ko waxee Mamadou Mamour Diallo ak le mouvement doli Bep action politique publique bu président Macky Sall def dako ci accompagner mom tamit mo bay ci waram fat ñi ngi la journée du 29 février 2020 le président Mamour Diallo ak son mouvement opération cleaning day Bim mu def plus de sept quartiers ñu nettoyé ko ba mu set té bala lolu le mouvement doli mom initié par une de ses responsables Fatoumata Bint que je salue au passage Louga zéro déchet nous en droite ligne à cleaning débit Maxal alors ce samedi 29 février 2020 opération cleaning débit mouvement de def son président Mamour de mémoire de Sénégal, tamit nous am ndax Nous tax am plus Bo le recyclage des déchets qui la jël ben en partenariat avec Benji GIE bu nekk Rufisque bu Adek. wax ADEC nga une spécialité moi, recycler les déchets di jël déchets plastiques de faire des ustensiles yu mel des ay palates et cetera di ci pavages, ay pavage di ci charbons, même ay charbon charbon donc nous en collaboration avec Adek bobu ci opération de day il fële ci Grand Louga ñep fekk nañ ko médias yi ko les télévisions la presse en ligne tout le monde l'a relayé ñu def une démonstration cycle déchets plastiques yi ñu jëloon ñu recycler ko sur place ñep gis ko toujours en collaboration avec euh, GIE bobu le le mouvement Dolli décidé ne day jël unité def ko nga xam ni léegi désormais déchets plastiques yi nekk ko yëpp dañ koy recycler nga xam ni après day jur création d'emploi nga xam ni déchets yi gaa yi doon sànni léegi xale yi dañ koy for ñëw ñu peeseel leen ko mu nekk xaalis ñu jox leen seen xaalis ñu jël ko defaraat ko comme ni ma ko waxee ay ustensiles ay pavage ay charbon et cetera nit ñi mën cee jariñoo loolu ñëpp ñu ngi koy fàttali ko xëy na tey jii mbas mi moo tax. opération cleaning des yoy taxaw kooku Ben la rek ci lima wax ni le président Mamour Diallo ak le mouvement d'oli, day accompagner toujours le président Macky Sall dans ses actions de politique publique bi ci vois pour bi mbass mi ñëwee bi mbass mi ñëwee tamit ñëpp gis le président Mamour avant même ñuy instaurer couvre-feu mom mo njëkk décider tere éviter en tout cas annuler peu rassemblement dans le cadre des activités du mouvement Dolly. la preuve le 8 mars dernier qu'il a inauguré inaugurer la mutuelle Dolly.com, comme nga mouvement Dolly moo ko teg nga le 8 mars mais le président Mahmoud Giseni, Makissal Mohamed, ay activité am arrêté na parce que nous xam na Macky Sall à partir du mois de mars dafa waroon commencé à entamer ce qu'on appelle les conseils des ministres décentralisés avons arrêté yëpp def benn communiqué le président Mamour Diallo aussi avec le mouvement Dougouti, même si bi ñun tamit activité yëpp ñu arrêté ko arrêté activité yep, ba inauguration bobu ñu aurons a def lolo tax defu ko ci commencé nag moom dugg ci il a commencé d'abord par organiser une émission à la radio Carrefour une émission de deux heures de temps parce que dans le mouvement Doli parmi ses militants il y a des médecins on peut citer comme le docteur Sow bi IPRES docteur Diabaté bi conseil euh, hôpital régional Nous sommes le docteur Koulibaly, pharmacien etc. tous ces médecins là nous avons une émission de deux heures de temps pour expliquer aux populations le coronavirus les maladies comme le maladie Covid 19 les manifestations, etc. mais surtout comment sensibilisation sensibilisations. kooku nous acte boobu la posé au niveau de Louga ginnaaw bam arrêté tous les rassemblements dans les différentes activités du mouvement fa dans toutes les régions du Sénégal il y a ce qu'on appelle un comité régional de lutte euh, contre le Covid-19 Nous koy force Covid-19 dirigé par les gouverneurs dans chaque région le président Mamour bien que bobu sax ki bi commencé na arrêté na transport et yépp ak déplacement mais il s'est déplacé de lui-même jóge Dakar ñëw ba fi dënd ay produits c'était une valeur de 28 millions mu jël nga c'était composé d'une part de produits pour les lavages des mains ay <laughs> produits hydroalcooliques des ay etc., savons, savon tout ça et d'autre part des denrées alimentaires comme du riz et du sucre mu avons produit d'abord jébbal ko gouverneur médias relayé etc. pour la participation du mouvement d'Oli donc à l'effort de guerre contre le Covid-19 mu déposé au niveau de la gouvernance nous avons teg ko ci loxoy gouverneur te avons tamit un mu discours parce qu'il a rappelé à tout le monde que li tay mu que d'abord en tant que au Sénégal dako toujours ci politique bi def le président de la République dans toutes ses actions de politique publique mais surtout dako pour voir région Louga gi nga la bok donc participation gouverneur le même jour parce que ne Louga bi mi y a des jeunes Lougatois vraiment indépendants beaucoup ci parti beaucoup ci dara de manière spontanée ñu créons stop coronavirus alors ci seen i moyen nous ñoom ñu commencé di sensibiliser les gens à moyens ñu am ñu etc. autorité la première autorité politique bu nous te moy le président Mamadou Mamour Diallo ndax kérok bimu mu gouvernance ba djébal wal participation ci euh, mbassmi mi dafa jógee directement momi dem ci groupe jeunes yoy am mouvement bu ñuy wax stop coronavirus mu jox leen participation ñom ont ñu cadre, cadre ñoom ñoo waxal sen bop mais nan la première personnalité politique pour répondre à leur appel c'est bien Mamadou Mamour Diallo donc lool la ca def ban ta jógee nag daara yi parce que damay fàttali tamit te loolu lu am solo la Mamadou Mamour Diallo il n'est ni ministre il n'est ni maire yorul benn nomba tànk lépp lum ndimbal bu muy def ci dooleem la koy defee donc maanaam yorewul xaalisu askan wi kenn dénku ko xaalisu askan wi ba mu war koo delloo ci askan wi comme la maire walla keneen un boo xam ni dañ laa fal dajala suñuy impôt suñu yooyu jox la pour buñ amee ay problème nga régler kooku na leer amul benn nomba tànk amul donc ben xaalis boo xam ni maanaam askan wi moo ñoo ko ko ko pour mu war leen ko delloo donc lépp lu mu koy lu muy def ci dooleem la ko defee kooku c'est important donc moo tax après denrée yooyu muy ceeb ak suukar parce que nag danoo nekk dafa yor ay militants le mouvement Dolli au mois de janvier dernier on faisait un peu plus de 3000 000 militants on a dépassé parce que le mois de janvier le mois de mars l'étude d'olé, mouvement en termes de militants de membres actuellement on frôle plus de 4000 membres 4000 000 militants répartis dans les GOR, parce que le mouvement est structuré en GOR. et chaque il y a un coordonnateur et son bureau donc tu dans les alimentaires les ceeb ça fait 40 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre kooku moom la gox yi pour nous aider ko militants donc en attendant ce la defagul pour le moment ci sans compter toujours la sensibilisation parce qu'ils nous demande toujours de à travers les groupes WhatsApp ñu ngi ciy def leen man di sensibiliser di sensibiliser nit ñi ci mbas mi donc euh, président mamadou Diallo action yooyu muy jàppale président Macky Sall looloo koy permettre tey mu gën a jege askan wi ba nga xam ni lépp loo xam ni surtout askan Louga ñu ngi ko bëgg wala ñu jàpp ni muy en terme d'emploi en terme autonomisation des des femmes ah vraiment

ba bii passé cycle bii bi biñ ko génnee ëpp nëpp plus de trois cent millions de francs yoo xam ni lépp ci jigéen sans compter nag formation yi ñuy def formation yi ñuy def transformation des céréales et cetera yéeg yeeg yooyu yëpp yooyu tamit euh, yooyu yëpp mi ngi ci d'ailleurs xaalis boobu bi mu baree nekk ay trois cent millions la xam la gis ni loolu amatul sécurité parce que quand même trois cent millions mu nekk ci ay loxoy jigéen ñi di ko denc ci ay kees yooyu Euh, toute sécurité qu'il a une idée où ce qu'on appelle la mutualisation de toutes les caisses qui mettrait sur pied la banque qu'on appelle la euh, banque qu'on appelle donc Dolicom. nga avons ben mutuelle de crédit et d'épargne pour tout Dolicom. nous euh, waroon koo inauguré 8 mars mais comme nous avons ko le décembre nous sama fait Covid 19 bi freine freiné lépp moo tax ñu mettre ko en suspens di xaar inshallah bu li jeexee donc ñu continuer euh, liggéey bi donc mouvement Dolli daal looloo ko tax a jóg avec son président Mamour Diallo donc euh, ñu ngi xool ce que va l'avenir nous réservera donc ci la nekk lépp loo xam ni daal askan wi mën nañ koo dimbalee askan wi ci fànn bu ci nekk le président Mamour Diallo est prêt avec son mouvement

emploi yu bari euh, ils sont précaires boo jëlee Louga tay nga xamni ni yu bari ci ay dawal Jakarta lañ xam tay ji seen liggéey taxawna ak yenen ak yenen kooku daf ko inspirer ba nga xamni plan de résilience bimu tek le donne aussi à son plan de résilience pour Louga boo xam ni ñi ngi ci réfléchir président mi ngi ciy waxtaan ak ay experts parce que Covid 19 bi dafa bett ñepp mais jangal na lu bari tamit parce que njariñ li lool la parce que ay mbir pour nga mën cee inspiré wu pour defar la il faut dara xew li tubaab wax en toute chose malheur est bon lool la le président Mamour Diallo inspiré noo trop en tout cas ci conséquences économiques yi nga xam ni moom la mbas mi créé ba nga xam ni ñun tamit dans notre politique euh, de développement bi nga xam ni mooy sunu label vraiment d'un ci surtout sur sur la résilience économique et sociale pour toute la ville de Louga voilà je vous remercie merci.